ma yàlla la delloo yàlla boppam ndax nit ki loo am rek yàlla la ko jox kon nag dañuy sant yàlla di julli ci yonante bi rek di koy gën a sant bu baax ndax li yëpp yàlla la mu ànd ak papa Sow wuti yàlla xani papa may ko boo mën looy ñaax papa sa càmmiñ lan lay doon ah di ñaanal papa rek di ko ñaanal bu baax yal na ko yàlla defal jàmm mm. lii mu ñàkk yàlla doon loo xam ne lu koy génne ci bépp tolof tolof la waaw di ko ñaanal bu baax ndax papa moom wax dëgg yàlla kenn du bëgg di bañ dañu sekkoon benn tàkkusaan rek jeex na mbokkam la Siteu papa daf doon bëre mu takk ndigam waaw bëgg papa be bon nag tey du tax mu bañ papa lii rek moo leen boole woon bon nag na rafet papa juruma ko maa ko jur ndax jigéen mën naa nekk ndey waay eh, càmmiñam càmmiñ mun naa nekk baayu jigéenam waaw bon nag papa dama koy ñaana rek fi mu jublu nii yàlla gunge ko ba mu àgg yàlla may ko wér ak wérle ak gudd fan xam ne sita mbokkam la bëre bii ñuy def takkusaan rek lay doon jaru fi ñaawoo jaru fi wax nit daara loo xam ne rek su ëllëgee gàcce des fi saa su nekk rek day jox sa morom lu rafet mu lay jox lu rafet tey su jàllee tàkkusaan bi su jàllee gàcce du fa am waaw te itam may wax ne suñu doom yi ñu jur benn doom boo jur ci àddina melal ni yaa jur ñëpp parce que da ngay gis doomu jàmbur boo bootul nampaloo ko fóotaloo ko bootoo ko mu ñëw jëriñ la lu la sa doom jëriñul bon nag doomu jàmbur foo ko gisee rek day koy séntu na sa doom bi nga jur la la nga dul waxal sa doom bu ko waxal doomu jàmm ñun juruñu ay bandi jàmm gën fii de gisuma fi bandi gisuma fi itam reykatu nit fii ay gor laa fi gis ay xale yu am jom ndax liggéeyuñu demuñu amuñu liggéey waaye ñu ngi foraatu lu ñu am waaye ñu ngi yem ci lu ñu am itam waaw nit ki la fekk fa nga toog nag nar laa yat wala mu nar laa teg loo xam ne du noonu faawu nga yëngatu loolu la dañ seen deret eh, tàng ba du ñu tooñ nit de waaye kenn du leen tooñ nañ leen di waxal lu rafet ndax wax lu rafet ci doomu aadama dafa baax waaw rafet dafa baax nit ki suy def lu ñaaw sa waxal ko lu rafet loolu la yàlla bëgg waaye du nekk koo gis nit nga koy ŋàññi te li koy ŋàññi mu ngi ci yow bi fees waaw yal nañu yàlla defal jàmm te yàlla suturaal ñu te yàlla may ñu xol yu rafet yoo xam ne mun nañ koo àndeek suñu doomu moromu doomu aadama waaw. jërëjëf mbokk yi muy kàddu yoo xam ne kenn ko ne mën na cee jàng ah loolu moom muy wax noonu loolu moom xanaa tàng-tàng bi rek la hmm. waaye li nga xam ne sa métier la ci ngay sut ah, munoo ko tëb tëb rek bàyyi démb mënoon naa nekk moom mënoon naa daan te Siteu day jóg rek ak ngoram saa su nekk Siteu su bëree ba daanu su ñëwee ñuy gën a sant yàlla gën a dëgërluwaat du ñu am benn démb xale bi ñu li combat bi di yàgg-yàgg rek su ma jógee rek ba ñëw xool xale rek delluwaat dañuy naan yaay dara xewul man ko si dara xewoon itam dara man daanu Siteu ak daanu Siteu laa yemale su bëree ba daanu damay sant yàlla su daanee damay sant yàlla ndax yàllaay joxe te ku ko neex lay jox waaw yàlla lépp looy nangu ci sa loxo bi rek yal na la jikk ndax mun naa daan tey te du ko ji loolu ban sens la am bu na Papa na dëgëraat toogaat ci toogaayam defaruwaat ci kàttanu yàlla lu mu ut am ko ci mbaax yonente bi waaw. ñu gis combat bi Siteu dëxañu John Waar. yaa ko digal wala. ah Siteu daa ku ko digalul sa daa war a dem John Waar. man combat bi moom. daa ànd ak nijaayam man aw ma ci lenn loo xam ne rek xanaa ñaanal ko laa am ci combat di ko ñaanal rek fu ma toll maa ngi ko ñaanal di ñaanal bépp doomu jullit waaye Siteu moom ay nijaayam ko yor waaw lépp lu mu ko wax rek ca lay dox nijaayam nag mu nga jon waar kooku bëri na ba bàyyi bëri waaw mu nga jon waar lu mu ko digal rek fa lay nekk te foog naa ne nijaayam saa yuy bëre day déplacé wu ñëw fii Dakar waaw ñaari bëre yi nag dañoo décider pour mu dem jonwaar defaru fa ndax fa la juddoo mhm. fa la ndeyam juddoo fa la baayam juddoo waaw Siteu nag benn deret la nag man ak papam ñoo suñu ñaar sama pap ak ki jur papam yaayam ñoo bokk ndey ak baay man mii ni bàjjanam laa yaayam laa bàjjanam laa bon nag benn deret la ni ma séyee ak papam noonu la sama yaay doxalee ak sama pap mhm. ñun benn famille la kenn demul dikk bon nag Siteu warta def mënuta def lu bon deretam bii du du moom mënu koo def mënuta soxor itam ndax ay soxla mënuta toog te fajul soxla doomu aadama ndax ci deretam la bon nag nañu rafetoo rek te ñaanalante yàlla defal ñu jàmm àddina bi yëpp bépp doom buy dox bëgg a faj soxla yal na la yàlla gunge bi nga faj ko ci kàttanu yàlla yéen ñiy taxaw ni itam di liggéey yal leen yàlla sàmm yàlla defal leen sutura yàlla àggale seen yoon ba kenn ku nekk li nga bëgg ci àddina yàlla defal la ko seen télé yi yàlla yokk ko ba mu weesu fii ci barke Mouhamed. lu maañee sita <laughs> cere. cere cere laa ko jox. jën moom laa ah. cere siim jën cere jon waar. waaw waas bu bees tàq. waas de waas bu bees tàq. ci jonwaar pël demoon na jonwaar. ah mu ngi noonu ah, dem ba soo demee foofu de da nga lekk cerewaas. maa dem jonwaar ga ñu ci digg. ñu dem ba ci dugg digg ndox bi gaal gi fay may tudd yàlla. ah du gaal gi du fay ah de dara du la jot nag. ja dem naa jàmm dara du la jot da ngay dem ci jàmm ñëw ci jàmm. waaw da jonwaar moom dëkku baax la. dëkku baax la te suñu sàngamaar ba itam ku baax a fa ne. Hmm. loo ko ñaan mu may la ko. Ah. waaw nga am soxla dem jonwaar sangu ca géej ba rek. loo bëgg am ko. ci a yàlla kenn du ma nettali maa dem ba jonwaar bi ma demee mhm. di am mbégte rek ci yi ñu teew doon moom yaay si Dakar